ma dem ci beneen cas boo xam ne c'est ah. c'est bii moom bonne nouvelle la bokkul ak euh, nouvelle yi mooy Adja national Adja national euh, ni ko tubaab di waxee am na boroom kër ah. jamono yee ci ginnaaw bu ngeen dee fàttaliku doon nañ wax naan Adja dañ koo takk jamono yee ci ginnaaw mais biñ ko fi waxee moom mi sax dafa meroon moom Adja daf cee meroon lool ba naan bu ma kenn këreyal jëkkër mhm. kër ma borom kër wax na ci lu ne nag ba ay plainte sax naroon na cee jub journaliste bi ko njëkkoon wax da koo naroon a porter plainte waaw loolu la doon bañ nag mm-hmm. lambal mu mu mu mu lànk ca saasa mais bile yoon nag si avéré mm-hmm. aja national am na jëkkër am na jëkkër yaakaar naa loolu nouvelle la ngóone waaw bonne nouvelle la aja macha allah ko ñaanal ak ci sëyam bi yàlla bàyyi kook borom këram rek ci saa su nekk ndax Adja moom macha allah nit ku baax la ku soppalu comme ni ñu koy gisee ci théâtre yi rek ñu muy joué noonu parce que Sénégal parfois noonu la ñuy def dañuy jekk créer benn benn rumeur génn na ni takk nañ ko mm-hmm. wala diw tas na te fekk na dara dara dara lu ci dëgg mm-hmm. kon nag Adja dañ koy ñaanal rek yàlla bàyyi kook borom këram bu nekk bokk ci sëy yu ñu takkee ci aras rek mm-hmm. te bañ a tas ci internet Ah, comme yeneen yi ah moom dafa mel ni ay yëfam moom ci suuf ci suuf la amee de fi mu toll waaw ci suuf la amee comme waaw moo gën parce que takk nañ ko ci suuf mu annoncé ne maye nañ ko ñun moom dañoo mënoon dafay def ay cimbir cimbar ak cambar cambar macha allah ndax Adja moom jekk na rafet na ku jongoma la macha allah xam naa ne jëkkëram daal am na jabar xam na xam na fi nekk Dakar daal ay nopp fépp <laughs> waaw bëgg naa nag ngeen defal ma ay ay cœur pour pour madame Diop suñu directrice bi <laughs> bëgg naa ñu defal ko ay kër parce que émission émission topp kaa bu ngeen dee xool ci kaw ngeen di gis mais li ci suuf li ci baree bari moo koy moo koy liggéey donc defal leen ko ay kër pour pour rendre ko hommage moom aussi mhm. donc Feeling Dakar dafa yar ay nopp fépp te ay mhm. noppam nag wax dëgg yàlla noppi garmi la lu lu lu garaaw lu ne nañ ko indi teg ko ci taabal yi insha allah waxtaane ko nag ci mhm. xam-xam rek euh, aja euh, kii nu mu tudd jumboor yi lay wax ci aja national ak gërëm sëyam bi mm-hmm. léegi léegi da ko tudd rek mm-hmm. euh, da nga ci wax lu garaaw mm-hmm. di benn journaliste moo ñëw may ko jëkkër waaw rek moom mu ne bu ma kenn may jëkkër waaw aw ma jëkkër waaw ma fàttaliku fi benn bis kenn ku ne ku ñu waxoon ne dañ ko may comme ku ñu waxoon ne dañ ko may Youssou Ndour mu ne pat waaw loolu dem yaa ngi dégg waaw waaw xam nga foofu la ñuy jël indi fii ba pare ma def si analise am ñu naan ma ni nga waxee du noonu mm. parce que dama ne ko suñ la mayoon Ouzin Keita xam nga dañ ne ko Youssou Ndour lañ la may mu ne pat ma ne ko bu ñu la mayoon Ouzin kayta ba tey génn nga ni may ñu ma ko mais kiñ la may xam nga ni sa buzz mun na cee yokk moo tax nga ne pat moo tax ajaa mii bi mu génnee ni kenn mayu ma jëkkër ñu ma lambal mm. yaa ngi dégg ah mais baax na baax na dëgg yàlla am na gémmiñ yoo xam ne lu ñu wax loolu bugguma ko fee souligné mais bi ma ko fi waxee coow la yaa ngi dégg. Mm-hmm. te noonu lañ ko toppantee ba mu dem ba kiri koro ba mujj mu leer parce que wax nga ne pat. Mm-hmm. fii ngay gis kuñ ne may nañ la Aliou mu ne pat may nañ la Waly Seck mu ne pat. te boo nee ko may nañ la Pawlish mu génn ne bu leen ma ko waxat <laughs> waxat rek. dëgg de bu leen ma ko naan ko may nañ la Ndiaye tiktokeur. <laughs> yaa ngi Yoro Ndiaye tiktokeur ñaareel mu génn ne bul ma ko waxati loolu la rek waaw mais noonu la mhm. xam nga nit lépp loo nekk mhm. ah mhm. na nga pexee di ci wut lu baax xam nga bu njëkk ba nit danaan dugg ci aar théâtre dugg ci way pour lan jeexaale ku baax daw dem fa nañ xool suñu yaay ci na laamu maire ñoom sooda maama affaire yooyu yaa ngi dégg. Mm. gis nga ñoom bi ñu amee ku baax. Mm. ba tey dañ caa téye rek. Mm. te même bu ñu daan jóge fenn sax dañ fay jóge ak grandeur. Mm-hmm. mais xam nga lu bon. nga ñëw ci sëy. sëy fa ak ak ak doole ñu naw la ngay dem ñu nawadi la. Mm-hmm. moo tax ñu ne la yàlla nee na bokk na ci li ma gën a bañ te mu daggan mooy fase. Mm-hmm. nee na bu jàmm bu dem mënta am waaye nag. mu ne na rafet mais da ngay gis fii moom pour tàqalikoo du jàmm mhm. yaa ngi dégg dangay ngay gis kuñ tàqalikoo kii di ko wër pour xonjam ko kii di wax lu ñaaw ci moom kii di souligner ay wax di def lépp xoola benn waay dafa doon tukki mhm. mu ne jabaram damay tukki far muy dem oto ba demul mu ñëw ci guddi gi fekk jabaram fanaanul fanaanul ci néeg bi mhm. mu dugg ci néeg bi tëdd ba booru fajar mu xam ni jabar ji bu ko fekkee day rus mu daw dem bàyyi ba mu naaj mu ñëw fekk fa jabar ji jabar ji naan ko ay yow boo ñëwoon bii maa ngi fii di toog dama seetaan vidéo ba fajar xam nga mi ngi waa ji xam na nit fanaanu fi mm-hmm. waa ji bàyyi ko ndànk ku ko ne ku ko wax du nangoo wax mm-hmm. ku ko laaj du nangoo wax ba benn bis ndijaayu gel bi ñëw mu yóbbu ko ba géej ne ko est-ce que li ma lay wax bu ma la ko waxee doo ko wax. mu ne ko déedéet mu nettali ko problème bi mu ne ko est xam nga lu tax coow woon jigéen bi mu ne ko déedéet mu ne ko damaa bañ yàqal samay doom parce que boo yuuxoo sa doom dootul nekk imaam du nekk njiit. kenn du leen takk. Mm. yaa leen lambal. yaa lambal lu noonu. Mm-hmm. <laughs> waa jooju grandeur boobu mu dem mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ne ko ñëpp di def. am na solo. waaw am na solo. ma ma préciser encore. Euh, entre Boury Bathily ak Balla Gaye 2 wax naa ko sànq nee sëy bu bu fekkee ne sax dafa am problème ci biir ëmb bañ ne tas na ci ëmb mënut a nekk c'est impossible rawatina nag sëy bu mel noonu yaakaar naa li ci jumboole wax lu leer la. Mm-hmm. foofu weesu nañ fu ñuy tasee. Mm-hmm. ak fu ñu leen di takkee. weesu nañ donc juste euh, am na ci yoo xam ne nag. Mm-hmm. Euh, matul di revenir at dañuy dem ci beneen cas. <laughs> wala mu gaaw <laughs> <laughs> ma jëm ci. kaa boo xam ne wax dëgg yàlla dafa yitteel Air Sénégal Air Sénégal wax dëgg yàlla eh, kii bu kii bu mag la fii ci Sénégal ah, euh, te roppalaan nag wax dëgg yàlla képp ku ciy dugg képp ku ciy dugg ah dafa war a nekk ci condition yu baax te dafa am information yu ñu jot a am ne Air Sénégal euh, avion bi bari na ay paan te bari nañ ay jafe-jafe yu leen di signaler à chaque fois réeral ay bagages fii nangam nangam fii. yooyu yëpp ñu ngi leen koy faral di waxal ñoom waa Air Sénégal donc yaakaar naa nag Air Sénégal ak fi mu toll am na dayoo boo xam ne Sénégal gi yëpp jox nañ ko ko te itam euh, ñu ngi liggéey liggéey bu am solo nag mais bu fekkee yooyu am na yooyu bu fekkee am na war nañ koo régler parce que avion du oto avion moom wax dëgg yàlla du oto képp ku ñuy dugg na na nekk lu leer ñiy dugg avion xam nañ li may wax. sama yaay bu lay nettali bis ba mu njëkkee dugg avion da ngay ree bay bëgg a dee sama yaay bi muy njëkk a dugg avion maanaam bu avion bi jug rek foofu àdduna su tukki la loolu tam lu mat a bàyyi xel la Air Sénégal jumboor yi. buy jóg ak buy wàcc mooy danger bi buy yooyu mooy danger bi. waaw ah, euh, boo xasee jeex na. waaw léegi Air Sénégal daf ci am daf ci am ñoo xam dañ ne am na ci seen avion yoo xam ne day dem ba ca kaw. Mhm. paan ci kaw jaww ji. Mhm. xam nga loolu c'est très dangereux. bu baax bu dee lu am la. pan ci kaw jaww yi ñu bari dañuy faral di wax naan boo jëlee Air Sénégal say bagage pour nga jot ci rek yenn saa dana am yoo réer la wala yu nangam mais am na ñeneen ñuy wax ni aussi Air Sénégal seen lépp leer maanaam ñu ngi liggéey liggéey bu am solo parce que foo déggee ku wax lii déggaat ku wax leneen. dëgg la ngi liggéey mais yii manquement itam war nañu signaler ko comme ça ñu bàyyi.